salaamaaleykum sama gars yi maa ngi leen di nuyu di kontaan bu baax ci amono yi ak like yi dee leen ko gën a def dafay gën a baax affaire yi dañu bëgg maanaam mu jëm kaw parce que yéen a tax ñuy sonn saa su ne mais tey nag dañuy waxtaan ci actualité ci li nga xam ne moo xew jamono ji ci ki ñuy njëkkee mooy al imam Serigne Khadim Bousso oh man am naa lu ma metti lool am na lu ma metti lool parce que li may gis jamono ji dara neexuma ci. metti na ma lool. ci lañ commencé nit ñi góor ñi ak jigéen ñi taxaw ci biir jumaa ji ci penku bi nga xam ne suñ saari bi daaw fa sol ay dàll taxaw fa di yuuxu turu waa jooju di yuuxu turam moom ci boo xam nag muy leen dee leen wax jërëjëf sëñ Tuubaa te ba a wax loolu. s'il vous plaît al bul dugg ci jotaay yi gis nga yii nii amul njariñ amul benn njariñ ci sa dund maanaam daf lay jural ay musiba daf lay jural ay mbañeel gis nga. boo xasee ba dugg ci li nga xam ne mooy ah yaa ngi tàmbalee guddal sa bopp ay noon parce que kat politique par par loola boo laalee fi ñi nekk fii nii yëngatu gis bop bo boo laalee fee ñi nekk fee yëngatu gis seen bopp loolu ak politique ñoo ànd imam bi rek te nga nekk ci lolo ji def naa loolu moo gën wala bo demee ba dugg ci politique <laughs> non am ni bo jengee far fenn faw ñi nga xam ne ñooñu ànd ñu waa jooju noonu faw ñu teg la dara faw ñu wax la dara loolu mënut a ñàkk loolu mook ak politique ñoo ànd boo duggee ci politique moom faw loolu dal ci sa kaw te saa bu kàddu jugee ci biir nit ñi da gis ñoo xam ne di dinañ la ñàkkee teggin moo tax bul wax waxi politique gis nga àdduna warul laa jaral dara dara loo xam ne maanaam dafay yàq sa biographie. billaahi man suma sañoon lii du am mais am na détail yoo xam ne boo ci duggee rek dugal nga su bopp képp kuy xool di analyse di jàngat xam nga li xew Sénégal bu baax a baax dara jaaru ci yoon xanaa kay dañuy gis dëkk gi rek jéggi si sunu tànk di ko raay raayal. boo nee dañuy jëlee nit ñi ci jaamu nit yóbbu leen ci jaamu yàlla jaamu yàlla googu nan la ko Sëñ Dramé déggee nan la ko Xaadim Bousso déggee nan la ko Abdoulaye Der déggee parfois day xaw a wuute boo demee ci al nazar salafiya muy salafiste yi ak wahabiste yi nañ déggee jaamu yàlla ñun niñ ko déggee ñun ñun ndësaw dafa dafa am différence ba wuute wax boobu nag dafa menacé mbooleem kilifa diine goo xam te nii dangaa yilif ab tariqa est que kooku mun ngeen yaakaar ci moom suñu digganteeg bitim réew ñu moom suñu bopp jamais loolu nag Pastef daf ko bëgg a tekki mooy lan mooy jëng yooyu nga tekki ko parce que bu fekkente ne nag boo demee Congo Kivu wala Katanga fi mines nek te mines ya fa tu ci cuivre ci cobalt ci coltan ci zircon centrale yi nek Europe du ci bëri mo koy doxal matériel technologique li ngeen yor sen sen sen sen sen seen kër yi muy appareil muy téléphone muy euh, ordinateur portable yi foofu lay jugee matière première yi te fofu ñi gas mini ay xalé nañ yoo xam ay moins de 15 ans nañ am dans une précarité totale buñu gassé suba ba ngone ay 500 francs 1000 francs la ñeen jox ñen ñi ay beñe na ñeen neexal chaque semaine ngeen dégg ñëla 10 ba 15 xalé benn mine dal na seen kaw ñu dé mais ñooñu dañuy jaamu nit wala jaamu ñu nit est ce que loolu passif da ko fay wara bayyi wala daf ko wara tinki wa loolu moy projet passif oh maître nak li wax deug la dé mais wax nak sa bu jugé noko bëgg déggé rek do koy déggé ndax kat buñ waxenté deug nit mom warta jaamu moromu nitam yalla kassé la wara jaamu parce que bo dé xol suñu mag ñi bax ñepp ku ci démé ni ki cheikh ahmadou bamba khadim rasoul cheikh omar fouti tal ak ñeneen ak ñeneen liñ doon xex lepp moy fexé ba jëlé fi fexé ba dal manam gumu jam gi ñuy japp ñu dakal ko fexé ba dal manam ñu bëgg ñoo def ay jam bëgg dal ñu leen di jamu ñu dakal ko fi mu daal di fi jeex loolu moo doon seen liggéey te loolu moom lañ war a xeex saa te képp ku koy xeex dañ la ca wara jàppale bu baax baax waa na dëgg nooteel gi dafa war a jeex fi mu toll nii ci xel lañ ñuy nootee te loolu noonu dafa war a dakk dafa war a deñ ci Sénégal. oh man daal li ma métti Sonko dañ ko bëgg a jaxase ak nit ñi ci wàllu pas-pas te alors que loolu amut dafa am ñoo xam ne maanaam dañuy wax wax yoo xam ne daal dara yanuwu ci maanaa gis nga fii nii li fi maam yi ji képp ko koy ji ma déjati yow yaa fiy jóge wala di nga sonn waaye doo ko fi jëlee mukk gis nga ki nga xam ne mooy Sonko. wallahi daray ay nekkut ci moom xanaa kay dañ koo sonal rek bëgg koo xañ li nga xam ne mooy jàmmam ci ay jaaxaan gis nga ci bu ñu ko ñàkkee wallahi dina ñàkk lu rey koo xam ne maanaam lépp loo xam ne nguur gi da koy xeex te muy lu baax moom da koy may doole saa su ne fan yi rek moo ci mujj gis nga daara ak alxuraan nguur gi yàgg na koo xeex mais moom dafa ñëw gën a dooleel ñooñu noonu ba ñooñu sax jug di ko jàppale ndeysaan alxuraan dafa nekk ci moom te saa su ne dafay woo jullit yi ci booloo ci jàpp ci doon benn. billahi politicien bu mel nii dafa jafe ci Sénégal dafa raar moo tax dañ ko war a jàppale bu baax a baax. suñu ñu bàyyi sunu caaxaan yi gis nga Senghor moom doon doon jullit te doon na jiitu réew mi ci Sénégal jiitu réew mi ku nekk ko mën a doon ci Sénégal en tout cas daal na nga bëgg Sénégal defar Sénégal daal la ñor képp ko bëgg a defar Sénégal xanaa doo ñëw naan ngay da fiy jëlee ay tarixa loolu de mooy yàq Sénégal tasaare Sénégal ba faw li ma mënta nangu ci sa salafiste yi ñoom dañoo bëgg a takk firi loo suñu maam yi ak képp koo xam ne dafa gëm suñu maam yi te alors que sunu maam li ñu liggéey ci islam kenn liggéeyu ko ci islam fii ci sénégal loolu moom di ko hey yow lan mooy ci sa yoon ñoom daal damel dañoo bëgg a yàq rek waaye ñoom xanaa xamuñ ne maanaam bul toon mag ñu baax ñi diine nax saay ci sénégal parce que lépp lu baax mag ñu baax ñi ñoo ko saxal fii ci sénégal gis nga ñoo fi indiwaat topp yàlla ak yonente bi ak fonk li nga xam ne mooy alquran di ko màggal jullit yi nanu booloo parce que yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee nañu jullit jullit ay mbokkam ci biir alquran yàlla dani jullit ñi ay mbokk lañu nañ rafetal la ci suñu moroom bi jullit yàlla delluwaat ni jàppaleen ci gumu yàlla gi te bu leen tàqali ko te gum googu mooy islaam lii nit ñi xam nañ ko mais duñ ko jëfee mooy problème bi ah dañoo nekk ci li leen neex rek ok merci jërëjëf kontaan naa day na bul waxaat nag dégg nga mais mbokk yi réew mi suñu réew la bu baaxee ñun la baaxal bu bonee ñun la bonal bu kenn ku nekk topp sa intérêt nanu topp intérêt réew mi nanu jiital intérêt réew mi gis nga fi kenn ku nekk xam nga ki baax ci réew mi te ñu bàyyi affaire yi jaxase yi ñuy dugal ci xel yi ban ban tànk moo damm ban fan ban moo damm ban moo damm xam nga ni en grande forme kon na sa sedd <laughs> mais maître bi moom lu def nii mais Alaaji Baara maître mii dara dalu ko de maître yëngatul ma gis. ban tànk ban tànk moo dàmm ban ban ci ban ban ban tànk moo dàmm ban fan ban moo dàmm ban moo dàmm. <laughs> non Sénégal lu nekk nga gis billaahi mais gars yi kontaan naa ci abonné ak like yi macha allah di leen ko gën a def merci beaucoup ba beneen yoon.